merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu andal. collaborateurs yi di nuyu euh, votre chef de cabinet di nuyu madame Sané ak euh, directeur yi nga àndal yëpp ak El Hadj Diop ñëpp maa di nuyu monsieur le ministre ñu ngi lay félicité félicité bu baax ci liggéey bi nga xam koy def ci sa ministère ndax gis nañ bi nga ñëwee ba léegi macha innovation yi ak euh, réalisation yi nga fa def euh, tax na Sénégal ñu am climat de paix ci walum tabaski ak walum élevage lolu suma ko waxee monsieur le ministre dina féliciter le président de la république ci range de Dolly dina ko féliciter tamit ci matériel yi nga xamné may nako suñu jigen ñi nga xamné ñoy yëngatu ci walu mew ci géniteurs yi ak ci accompagnement bi dina la féliciter tamit sur les 135 millions yi nga xamné jox nga ko éleveur yi nga xamné ñoo nekk ci département de Linguère ñu koy utiliser toujours di jënd aliment de bétail pour mu yombal leen euh, euh, liggéey bi monsieur le ministre élevage dafa nekk loo xam ne dans le département de Linguer ñun ku xam Jolof xam ne muy sàmm mi muy mbay mi ñun waa Jolof ñoo ko yor léegi kon dañ leen di ñaanal rek ngeen réussir ndax bu ngeen réussir Sénégal jëm ci kanam waaye monsieur le ministre waxoon naa la ci travaux yi na la ñun Jolof dañoo bëgg abattoir national abattoir boo xam ne dafay moderne de telle sorte que nag yi nga xam ne dañ koy jëlee dans le département de Linguère di ko dàq muy def ay kilomètres pour ñëw Dakar wala dem feneen ñu koy defaree foofu pour ñu mën a gën a bi nga xamné mom lañuy def mu créer ay emplois ci dans le département de Linguère monsieur le ministre lolu su ma ko waxee tamit dina revenir tuuti ci effort yi ngeen di def ci walu mew bi wàññi facture laitière bi kon kenn warul taxaw fi di joxe ay fausse information su ma ko waxee ki ñi wax ki wax xam bopam mais je nga ne saa rek dina suñu urne yi wala mu ci suñu si yi wax na fi wax yu wax na fi lu dul bu ma rek contre vérité fi wax na droit de douane loolu ay kàcc la monsieur le ministre ko éviter parce que bu la ñi ne ci mi wax dëgg wala suñu andi information tamit monsieur le ministre nañuy wax la éviter opposer di wax pour jax suñoo population bi wala jax suñoo ñi nga xam ne ñoo ci secteur bi meew da fay fay droit de douane amul ben meew bu dugg Sénégal te du fay droit de douane depuis ma euh dugg ci walu meew musuma ñew andi meew wala kenen sama morom andi meew ñu na la do fay bu fekkee matière végétale bi la dañ ko def 1200 parce que ku ne xam ne ne ménagère bi ak euh, fi nga xamné né inflation bi amna fa motax président Macky Sall wañ ko parce que c'était 26 bu fekke euh, matière euh, animale bi la yaa ngi fay 2200 ci ci ci ci wàllum dédouanement kon nañu bàyyi di wax parce que c'était à 44 le président Macky Sall wàññi ko xam naa ne ministre dana dana ko gëna mëna mën a wax pour wax kessé wax pour jaxase askan nit ñi reprendre ko titrer ko ne meew mi du fay dédouanement non loolu moom dafa ëpp monsieur le ministre te bëgg nañ tamit à chaque fois nga ci gëna andi ay leeral en tout cas gis nañ ne tabaski bi toute la population du Sénégal ñëpp a salué liggéey bi nga xam ne def ngeen ko parce que daanañ am ay difficultés yu bëree bëri rawatina nag tamit fi may waxee toujours mooy la range de Doli monsieur le ministre bëgg nañ ñu moderniser ko. parce que culture fourragère bi nga xam ne suñu mbokk jigéen ñi ñu koy def dans le département de Linguère bëgg nañ ngeen gën leen a accompagner unité unité laitière yi fa nekk euh, monsieur le ministre war nañu def euh, mix énergie parce que tamit ku ne xam ne ne Jolof des fois bu tàngee. Euh, wàllum courant bi mën na cher ci seen liggéey bi kon suñu leen jàppale ñu am ay solaire mën ko gën a généraliser dans tout le département unité yi gën a yokk dina tax liggéeyu meew bi gën a ñoŋ gis nañ jàppale bi nga xam ne yaa ngi koy def ci département de Linguère ci jigéen ñi waaye monsieur le ministre dañu bëgg ngeen redoubler effort pour li nga xam ne moom lañ bëgg ci wàllum meew bëgg ko tamit ci wàllum euh, ndawal gi mu gën a ñoŋ en tout cas ñun ñu am nañ fierté lool bokk ak yow Jolof ndax li le président Macky Sall jox félicité na la félicité waat la euh, éleveurs yi nga xam ne ñoom nga seq ak liggéey bi à chaque fois ñu ngi lay félicité mënuñu dul ñaanal la nga gën a réussir li ngay def je vous remercie monsieur le président. merci cher collègue.